jërë ngeen jëf mbokk internet sport live 221 dal leen ak jàmm Bachirou Babou manager bu Balla Gaye numéro 2 àdduna nag ci convocation bu Lion de Guédiawaye bi bile moom nag la mu xamle rek moo di doomu Double Less gi la daal du teg tànkam foofu nga xam ne moo di ca CNG ngir tontu nag ci convocation bi nga xam ne daal nañu koy woo niki tey ji la moom manager bu Balla Gaye numéro kon moo daal di joxe rek xibaar bu nu mel di xam ne ne doomu Double bi kon euh, du teew ca makkaanub CNG niki tey ji la comme ko sàkk woon ci moom rek gannaaw convocation boo daa xam ne tegoon nañu ko ci table ji jamono ji nga xam ne nag kon moom mënees sañu xaar mu am avertissement wala sax suspension boo xam ne mën naa dem ba juróom benn weer yoo xam ne moom mi ne du takk ngembam nag gannaaw kàddu yoo xam ne jël na ko rek yëgati ko gàll ko ci ndoddoog euh, CNG euh, relatif nag ci ponction li nga xam ne rek moo di reliquat yu mbëri ak xaalis ba ñuy téq sa ñoom moom mi wax na nag te bu miir dong euh, ci la ko CNG daal di téqil toll ci un million de francs fa loole mu jàpp ne sàcc la nag waaye nag moom Balla Gaye numéro daal décidé na daal ne convocation bu mel moom du ca teew maanaam woote boobu du wuyu en tout cas loolee mooy kàddu yi nga xam ne ménager am di Bassirou Babou moom la daal di yëkkati xamle ko ci naataango yi nekk ci Albourakh TV moom nag gannaaw bu mu xamlee sax ne jot nañu convocation waaye nag Balla Gaye numéro 2 ni ki tey jii moom du teew foofu ca CNG la ko waral rek mooy dafa nekk en déplacement jamono jii dafa am yeneen yitte yoo xam ne moom lay dox. Euh, te nag kon du mën a wuyu ji woote boobu nga xam ne woon nañ ko ko ñu ngi xaar nag CNG. Euh, mu tànnaat beneen daat euh, ngir convoqué ko moom Balla Gaye numéro 2 en tout cas lii muy kàddu yi nga xam ne ménager bi daal dina koo xamle waaye daal la mu xam ne daal te mu leer te ñu mën koy tënk moo di a nag convocation bi moom Balla Gaye numéro 2 du ci dem wuy ji foofu nga xam ne moo di ca CNG des xaarandi rek kon ana fan la wanante di mujjee ki gëtëm ak rek ana lan ni sanction moo mën a gàllu ci ndoddoog doomu géejaay bi le gannaaw rek yi nga xam ne yëgati na ko rek ko ci ndoddoog CNG jërë ngeen jëf mbokk yi li mu doon xibaar ci bile vidéo yeneen rek ci yeneen i lay doon bu ci àll ande laata loolu wéy leen di like di abonné ci chaîne chaîne ko déggan ci page rek te abonné go ñaan nga abonné activé sa cloche su ko defee rek dugal ci vidéo nga bokk si ñu koy njëkk a jot cant ak ngërëm ñeen na leen ngeen jëf